Il est 20h sur les antennes de la 2STV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans L'actualité en un point, cette vague de violentes manifestations qui sévit dans le pays depuis plusieurs jours, plusieurs morts dénombrées. À Pékin, Ismaël Traoré, âgé de 29 ans, a été tué. Sa famille exige l'ouverture d'une enquête. Autre conséquence de ces émeutes, les pillages et agressions notées. Et les Sénégalais condamnent ces actes de vandalisme. Les évêques euh, du Sénégal disent non à la violence et oui à la paix. Les évêques déplorent les nombreuses victimes et invitent les acteurs euh, politiques à promouvoir la paix Et pour finir ce rendez-vous d'information, nous aurons le professeur Mamaram Sek, secrétaire adjoint du CUDIS, cadre unitaire de l'islam au Sénégal, au téléphone pour élaborer des pistes de solution Voilà pour le sommaire, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. La tristesse et la désolation se lisent sur le visage des habitants de Pikine Guinaouraï après la mort de Ismaël Traoré, dit petit, âgé de 29 ans. Ismaël Traoré a été tué hier lors des affrontements. Son oncle Ibrahim Barry revient sur les de son décès et demande à la justice d'ouvrir une enquête. Les propos de la famille du défunt ont été par Cheikh Omar Gay depuis Pikine. waaw sama jarbaat bi démb dañ ko buyoon dafa yóbbu woon dafa euh, on m'a informé qu'il était parti amener sa mère dans une maison à son retour il était avec ses amis et c'est à partir de ce moment qu'une voiture 4x4 de couleur blanche est venue vers eux aux environs de zéro heure des nervis sont descendus avec des armes à feu c'est en quittant les lieux avec ses amis que Petit a reçu trois balles l'une à l'œil gauche et les deux autres dans le tronc c'est vraiment triste ci lañ nekkoon bu weex. ci 4-4 lañ hmm. hmm. D'après ce que nous avons vu hier, j'étais pas sur le lieu du drame, mais on a informé ce qui s'est passé. Il avait accompagné sa mère pour traverser la route. Du coup, on lui a tiré une balle sur la tête. Ce que je déplore, dans tout ça, il fait partie de cette localité. Ce qui lui est arrivé, c'est à Petit était l'espoir de toute une famille. Il se décarcassait pour subvenir à ses besoins. Au moment où je vous parle, sa maman est malade. Depuis l'annonce du verdict, c'est le chaos total à Pikine. Les écoles sont fermées, y compris les marchés. Je peux dire rien ne marche. de ces derniers jours n'ont pas été sans conséquences. Pillages, agressions, accès difficile pour soins médicaux s'invitent dans la danse. Les Sénégalais alertent sur ces aspects et condamnent les actes de vandalisme, nous dit Adjara Sissé, accompagné de Libas Laindir et Cheikh Kébé à la caméra. dans nos prochaines éditions ou de cette toujours dont nous parlons de ce climat social et politique actuel du pays. Les évêques du Sénégal disent non à la violence et oui à la paix. Les évêques déplorent les nombreuses victimes humaines ainsi que tous les actes de destruction des biens publics et privés. Ils invitent tous les acteurs politiques de l'économie mais également de la société ainsi que les guides religieux à mettre en avant l'intérêt général, à promouvoir l'histoire, la paix, l'équité sociale, les propos de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, ici au micro de Robert Djandi et de Salassambe. Il rappelle à tous le devoir de construire et de développer notre pays ensemble, dans la paix, la loyauté et le respect mutuel. Ils en appellent à la raison, à la retenue et à la responsabilité. Ils disent non à la violence, oui à la paix. pour le présent et l'avenir de notre nation. Les évêques invitent tous les acteurs de la politique, du social, de l'économie, ainsi que les guides religieux à mettre en avant l'intérêt général, à promouvoir la justice, la vérité, la paix et l'équité sociale dans leurs propos comme dans leurs actes. La constitution de notre pays garantit à tous la liberté d'expression Les évêques rappellent toutefois le devoir d'une prise de parole vraie, respectueuse, responsable et constructive. Aux jeunes de notre pays, force vive de notre nation, les évêques adressent un message d'espoir pour qu'ils ne cèdent pas au désespoir ni à la manipulation au point de brûler, saccager et détruire les biens appartenant à autrui et à la communauté. Il les invite, ainsi que tous les concitoyens, en retour aux valeurs, notamment au respect de la vie humaine, à la promotion du bien commun et de la paix. Les évêques convient tous leurs concitoyens au respect des lois et règlements et des institutions de la République qui garantissent notre vivre ensemble. Je vous le disais tantôt, les émeutes de ces derniers jours n'ont pas été sans conséquences. Pillages, agressions, accès difficile pour soins médicaux, s'invitent à la danse. Les Sénégalais alertent sur ces aspects, condamnent les actes de vandalisme. Adjara Sissé, les Baslaïnir et Cherkebe, reportages dommages collatéraux, les récentes manifestations n'ont pas été sans conséquences. S'il y a une population enragée dans les rues qui casse et brûle, tout sur leur passage, d'autres sont dans le désarroi total. Les retombées sont bien plus qu'économiques. J'avais déjà voulu brûler mon magasin il y a deux jours. J'ai tenu bon, je me suis battu avec lui. Là, mes efforts sont vains car ils ont réussi à brûler des années de dur labeur. J'ai commencé en tant que vendeur de maquillage, utiliser une table. Là, j'ai pu réussir à être dans une boutique. C'est déjà fini. Il faut qu'ils pensent aussi au mal qu'ils font à leurs propres frères. non dem si guddi ay côté heures Ils ont brûlé mon entreprise aux alentours de 19 hier soir. Quand ils agissaient, on m'a prévenu de chez moi pour venir faire le constat. Nous sommes tous des jeunes, pensons aux actes qu'on commette pour le développement de ce pays. Ce n'est pas possible. Une situation que beaucoup de Sénégalais ont du mal à comprendre. Pourtant, ils sont censés être du même côté. Joindre un hôpital pour des soins d'urgence, des personnes âgées sans aide, des agressions de toutes sortes s'invitent dans la danse. ko bëggoon taal bu dul woon góor yi fi nekk ci marché bi kon taal nañ suñu bagage yëpp man keroog. Ils suivent les femmes pour nous agresser. Beaucoup sont victimes de cette situation. Nous sommes fatigués en tout cas. Il faut des mesures fortes et une conscientisation de la part de tout le monde. Les malfaiteurs en cette période nous volent et nous harcèlent. C'est vraiment déplorable. ñun ñuy fii muy taw ci kaw muy noor di nawet lépp suñu kaw. ñoo dëkkee biir marché sonn nañu vraiment wax dëgg yàlla Comme des personnes âgées, nous ne supportons pas les gaz lacrymogènes et c'est très mauvais pour notre santé. On a la boule au ventre à chaque fois qu'on les entend dehors et ça vient jusqu'à la maison des gens et perturber leur tranquillité. Il faut une protection absolue de la population. Nous signalons aussi, vraiment dans ce quartier, hier, un jeune a été teinté par C'est ma fille qui m'a mis au courant. Je suis encore sous le choc. sama frère bi téléphoné man ni ma xam kii bi euh, booy bi euh, booy bi dóor na ko bal. événement bi ñu nekk ni métti na trop trop trop métti na lool ñun daal nañ ñu may jàmm jàmm daal la bëgg nañ ñu may jàmm ndax. Nous voulons en tout cas la paix pour pouvoir travailler et faire évoluer les choses dans ce pays. Nous vivons déjà des temps très durs, euh, surtout les mères de famille. Quand aucune voiture ne circule, on n'a aucune sécurité, les clients ne viennent plus, les tailleurs sont handicapés en ce moment. Le climat actuel ne rassure pas les Sénégalais Beaucoup sont inquiets sur la suite des événements. Ils invitent ainsi les jeunes à avoir plus de responsabilités dans les manifestations et à l'État d'agir pour le bien des citoyens. Adjara Sissé, le ministre du Transport des infrastructures aéroportières d'Oudouka, appelle au Le président de la plateforme S24 invite les membres de l'opposition à pérenniser le dialogue le président Macky Sall pour la au Sénégal. Doudouka est au micro de Abdoulaye Mal, de tolérance et de respect mutuel. Nous ne pouvons pas laisser quelques individus ternir l'image de notre pays à travers des actes de violence et de destruction. Ces comportements ne font que qu'éloigner, nous éloigner de notre objectif commun, qui est de bâtir un pays démocratique, je, bien, un pays démocratique, de progrès et de justice. C'est pour cela que nous condamnons fermement les violences qui ont éclaté dans certains de Dakar et dans d'autres villes du pays. Nous sommes profondément préoccupés par les actes de vandalisme, les pillages, les agressions qui ont lieu depuis quelques jours et ces ne sont absolument pas représentatives des valeurs que nous défendons au sein du s pour cela nous croyons à un dialogue constructif pour bâtir ensemble un avenir commun pour notre pays. Nous appelons tous les acteurs à faire preuve de retenue et à respecter les principes républicains et démocratiques. Le dialogue politique est en ce sens une occasion unique pour les acteurs politiques, les forces vives de la nation, je voudrais dire, d'échanger des idées de partager les perspectives des différentes solutions pour trouver des réponses aux préoccupations de notre population. Je vous le disais tantôt dans les titres avec nous au téléphone, nous avons le professeur Mamaram Sek, secrétaire adjoint du QDIS, cadre unitaire de l'islam au Sénégal, mais également enseignant-chercheur pour essayer de trouver des pistes de réflexion, des pistes de solution à ce problème que nous subissons depuis euh, quelques jours. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, bienvenue dans ce rendez-vous d'information. La première question, bien sûr, s'agirait de, de, faire un bilan de, ou plutôt, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement dans le, dans le pays euh, Merci. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire des disparus, mais aussi d'exprimer ma solidarité euh, aux familles euh, éplorées euh, aux forces de défense et de sécurité qui ont aussi des familles euh, qu'elles ont laissées à la maison pour s'occuper de l'ordre public. Donc à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par euh, cette crise. Alors la situation euh, est très difficile. Je pense que tout le monde le reconnaît aujourd'hui. On est dans une euh, situation compliquée, presque une impasse et il faut trouver les moyens d'en sortir euh, le plus rapidement possible. Très bien. Alors, est-ce que cette situation pouvait être évitée Est-ce qu'on pouvait éviter justement d'en arriver là avec euh, la vague de violence notée ces derniers jours Oui, à mon avis, euh, on a laissé perdurer euh, toutes ces questions-là euh, au point d'en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et au niveau du CUDIS, cadre unitaire euh, de l'islam au Sénégal, dont je suis le secteur général adjoint, nous en avions tiré, euh, nous avions tiré les conclusions, euh, un bilan des événements de mars 2021. Et si vous vous souvenez, nous étions partie prenante dans la résolution de, de la crise. Mmh. Euh, tout est d'ailleurs de l'initiative euh, du CUDIS d'aller vers les autorités religieuses pour qu'elles interviennent euh, dans la résolution de la crise. Et tout de suite après, nous avions convoqué une grande rencontre pour tirer un bilan de, de, notre, de notre médiation, mais aussi pour alerter euh, sur la possibilité de revivre la même situation si certaines questions n'étaient pas euh, Et je, malheureusement, ces questions-là euh, sont encore là et euh, c'est ce qui a conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, professeur, on peut dire que nous n'avons pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en mars dernier, c'est ça Voilà, je pense que nous, nous, nous avons peut-être euh, dormi sur, nos lauriers euh, en oubliant que voilà, la situation peut peut, peut s'empirer ou s'aggraver à tout moment. Très bien. Alors maintenant, l'heure est à l'apaisement. Est-ce que le CUDIS a entamé des actions justement pour que cet apaisement soit, soit réel, soit palpable Oui, euh, le CUDIS, euh, comme je l'ai dit tantôt, euh, s'est toujours inscrit dans, dans, dans des initiatives euh, pour euh, le maintien de la paix euh, et pour, euh, pour la concorde nationale. Alors, euh, nous avons fait le tour des, des familles religieuses euh, pendant, ah, bien avant d'ailleurs les événements de 2021, pendant ces événements et même après. La dernière initiative remonte il y a juste une semaine. Nous sommes allés à Touba euh, pour voir le Khalif général du Mourit et lui demander de faire tout ce qu'il peut pour euh, intervenir euh, pour que la paix euh, revienne, dans le pays. Alors, donc, nous avons aussi euh, rencontré des autorités hein, politiques. Hein, nous n'avons pas l'habitude de faire des communiqués pour dire que nous avons rencontré un tel ou un tel. Nous, nous faisons euh, de la médiation souterraine. mais nous avons rencontré de, de, de hautes autorités de ce pays pour leur demander de travailler pour que la paix euh, s'installe dans ce pays. Et, nous continuons à, faire la même chose. Très bien. En parlant des religieux, nous avons noté qu'ils ont fait des sorties, notamment le calife général de Touba, celui de Medina et l'église qui tous appellent au calme. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que le, le résultat est, est là Euh, en tout cas, ils ont tenté de faire quelque chose et, nous, et je salue euh, ces initiatives. Euh, si vous vous souvenez, on a traversé un moment difficile avec justement euh, des, des, des, gens qui ont tenu des propos euh, discourtois vis-à-vis de, des marabouts. Hein. D'ailleurs, nous-mêmes, en son temps, nous étions intervenus pour que euh, cela cesse dans les réseaux sociaux. Alors, mais malgré tout, euh, il y a certains qui ont encore élevé la voix. Et c'est le cas, par exemple, du calife euh, de Medina Bay, qui a fait l'objet d'attaques euh, très récemment, mais qui, quand même, est sorti pour appeler à la paix. Oui. Alors, euh, certains ont peut-être dit non, nous n'allons plus parler parce que si on parle, on va, on ne va pas nous écouter. Ou mm. alors, on va nous, euh, nous euh, insulter, etc., etc. Vous m'excusez du terme. Mais pour dire simplement que euh, ils sont très courageux, que ce soit à l'Église, on a vu tout de suite les évêques euh, sortir un communiqué, les khalifs généraux et, et, et même d'autres, hein, d'autres euh, autorités religieuses on élevé la voix pour, pour appeler à la paix. Alors, je pense que tout ça, Euh, euh, ne peut pas être vain. Maintenant, il suffit que chacun ait la volonté de de faire euh, avancer les choses positivement pour qu'on euh, en arrive à une situation euh, d'apaisement. D'accord. Et du côté des politiques, que pouvons-nous retenir concrètement entre l'État du Sénégal et l'opposition, en l'occurrence le parti PASTEF, qui doit lâcher du lest, selon vous? À mon avis, euh, nous, nous, nous, il est euh, aujourd'hui, nous en sommes à, à l'heure de la responsabilité. Je pense que euh, les discours euh, euh, de va-t-en-guerre ne, peuvent pas régler cette situation Il faut que de part et d'autre, que ce soit du côté du parti au pouvoir, de l'État, que que qu'il y ait des voies concordantes euh, dans la voie de la paix. Il ne faut pas que qu'on qu continue d'appeler à, à, des, à, des, à des actions qui ne peuvent que faire empirer la situation et, et le constat est déjà alarmant. On a quand même 15 victimes. Euh, Dieu seul sait si ça va s'arrêter là. Officiellement, On oui. sait pas. Mhm. Donc, il est temps que chacun tienne un discours responsable pour que tout cela cesse et qu'on aille vers des dialogues, qu'on aille vers, n'est-ce pas, des, rencontres euh, entre les protagonistes. Et ça peut se faire euh, au niveau du dialogue qui, qui va euh, s'ouvrir il y a peut-être dans deux, trois jours. Euh, mais il faut qu'on arrête les casses, il faut qu'on arrête la violence et qu'on aille vers euh, des concertations, vers, vers le dialogue. C'est important le dialogue, nous allons y revenir. Mais avant ça, est-ce que vous avez essayé de joindre le chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, et comment appréciez-vous son mutisme dans, cette situation euh, à ma connaissance, nous ne sommes pas euh, entrés en contact avec lui, mais nous l'avions fait avant. Je pense que il a lui-même reconnu que nous avons fait de la médiation, n'est-ce pas, pour, euh, pour, pour qu'il qu intervienne, lui et les autres, euh, euh, pour qu'on euh, qu ait une situation euh, calme, n'est-ce pas, pour que, pour que les choses puissent avancer dans la bonne direction. Donc, euh, mais présentement, je ne peux pas dire qu'on a été en contact avec lui. Très bien. On va parler du dialogue politique maintenant qui a été ouvert depuis jeudi. Euh, donc pense que ça peut être un début de solution face à ce problème, mais est-ce qu'on peut tenir un dialogue dans, dans un climat pareil À mon avis, euh, tout peut se, régler au niveau du, du, dialogue. Si vous regardez les, acteurs du dialogue, c'est toute la société sénégalaise. Effectivement, mais le principal Excusez-moi, oui. mais le principal concerné, en l'occurrence Ousmane Sonko, a décliné ce dialogue justement. Bon, il faut, il dans ce cas le convaincre à participer au dialogue ou en tout cas on a aussi euh, Khalifa Sall, qui est de Yehu Askanui, oui. qui l'a dit, donc qui peut euh, valablement représenter cette coalition. Non, maintenant, ceux qui ne sont pas partis euh, euh, à ce dialogue, il n'est pas trop tard de les venir. Moi, je pense que on doit justement, c'est le temps de la, de la médiation, de la diplomatie, mhm. pour que tous les acteurs acceptent de se retrouver parce que l'heure, l'heure est grave. On ne peut pas sortir de ce dialogue avec, avec des, avec des, euh, euh des, des, des, des, choses qui ne, qui ne, qui ne, qui ne puissent pas régler définitivement euh, certaines questions. Et je voudrais, avec votre permission, oui. sur certaines, certains points qui, à mon avis, doivent euh, faire partie de, de l'agenda euh, de ce dialogue. Oui, justement, ça, va être notre prochaine euh, question. Mais d'abord, avant de venir aux, aux solutions, vous l'avez mm -hmm. dit, euh, le QDIS avait euh, depuis longtemps commencé justement à, à, à alarmer sur cette situation-là. Parlons de la charte de non-violence qui n'a pas été signée par certains partis. Est-ce que ça aurait pu éviter justement cette, euh, cette situation Effectivement, effectivement, et nous déplorons cela. Hein, je pense que nous avions fait le tour euh, de toutes les parties hein, euh, prenantes euh, de cette question. Nous avons vu euh, euh, son Excellence Monsieur M. Macky Sall. je pense qu'il fait partie des tout premiers, tout, toutes premières personnes que nous avons rencontrées. Nous sommes allés vers l'opposition aussi. Certes, ils ont eu quelques Euh, difficultés euh, par rapport euh, à la charte, je pense que nous n'avons pas été compris. Hein. Certains peuvent, même penser que voilà, leurs intérêts n'étaient pas pris en compte dans, dans la charte. Mm C'est bon. Ce qui a peut-être expliqué euh, leur refus de, signer la charte. Mais nous, étions mûs par euh, l'intérêt général. Nous voulions que le, que les partis politiques aillent aux élections législatives avec, avec zéro violence. C'était ça notre, notre but. Et, et, malheureusement, vous avez vu, malgré tout, il y a eu quelques difficultés lors de cette, lors de cette élection législative qui aurait pu être évitées si tout le monde était dans euh, le même état d'esprit. Très bien. Donc, euh, voilà. Donc, nous avons pris plusieurs initiatives. Ah, la charte Euh, est, est, est peut-être euh, l'une de ces initiatives, mais nous sommes allés voir les gens dans leur, euh, dans leur lieu de rencontre, mm -hmm. voilà, pour les convaincre à pour, pour la paix. Hein, nous l'avons fait avec des, des, des, organismes de la société civile, nous avons de la société civile, nous l'avons fait avec les partis politiques. Donc, malheureusement, euh, ça a donné ce que ça a donné, mais nous ne nous, nous décourageons pas, nous continuons dans, dans cette même lancée. Très bien. Maintenant, l'heure est grave, vous l'avez dit, et je pense que tout le monde doit euh, s'atteler à trouver des solutions, en tout cas des pistes de solutions pour que le climat revienne à la normale, que la tension s'apaise. On va s'adresser maintenant à l'universitaire Que pensez-vous que nous pouvons faire justement pour que la tension s'apaise et que la paix revienne dans, dans le pays Voilà, euh, moi je suis parti simplement du, du constat que depuis euh, 2012, mm -hmm. nous sommes euh, entrés dans une zone de turbulence et euh, nous y sommes toujours. Mhm. Et ce qui fait que euh, j'aimerais par exemple qu'on revienne sur certaines questions que je trouve essentielles. La, la, première, c'est la question euh, euh, du, mandat. Mm. Je crois qu'il faut régler définitivement cette question-là. Euh, si, les, si textes ne sont pas clairs, c'est le moment de les clarifier à jamais, mais aussi de faire en sorte qu'aucun président euh, nouvellement élu, au cours de l'exercice de son mandat, ne puisse pas changer la Constitution. parce que cela amène des interprétations différentes. On se retrouve avec une nouvelle Constitution. Certains diront, voilà, de mandat en cours euh, euh, appartient à l'ancienne Constitution et que voilà. Donc, tout, tout ce débat que nous avons entendu depuis 2012 jusqu'à présent. Donc, il faut régler définitivement cette question, à mon avis. Oui. Et les légistes sont inter interpellés euh, pour, pour cela. Euh, il faut régler la question aussi de la durée du mandat. peut-être que les cinq ans, euh, peut-être que c'est très court. Hein, pourquoi pas, pourquoi pas un mandat euh, unique de, de, de, de sept ans pour permettre à tout président qui vient de pouvoir au moins pendant ces sept ans-là faire ce qu'il peut faire. Parce que n'oubliez pas que parmi ceux qui prétendent aujourd'hui à la magistrature suprême, mm -hmm. il y en a qui ne pourront faire qu'un mandat de cinq ans. Mhm. Qu'est-ce qui, nous garantit qu'ils ne vont pas, en cours de mandat, euh, essayer de changer les règles du jeu pour euh, briguer un second, mandat Donc il faut régler la question euh, du, de, la durée du, mandat. Il faut régler aussi la question du, second tour. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, tous les présidents que nous avons eus récemment, que ce soit Ouad ou, ou on peut dire qu'il y a la psychose du deuxième tour qui pèse sur, euh, sur, sur, eux et qui fait que tout président qui vient, n'est-ce hein, pas, a peur d'aller au deuxième tour, tout simplement parce qu'il se dit que euh, je serai seul contre tous. D'ailleurs, le slogan, ça va être tout, tous contre X. Alors, il faudra donc régler cette question-là. Comment Peut-être en amenant un scrutin uninominal à un seul tour. Euh, pourquoi un scrutin uninominal à un seul mhm. Parce que ça va, ça a l'avantage au moins d'éclaircir les jeux politiques. On verra que euh, les gens iront pour avoir un coefficient, n'est-ce pas, un pourcentage qui leur permet de dire nous posons, euh, voilà, euh, ceci ou cela dans ce pays en termes de représentativité. Et, et, et, maintenant, des alliances pourront se faire dans la mise en place du, du gouvernement en fonction de la représentativité de chacun. Mm -hmm. Parce que si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que euh, on, on, se retrouverait peut-être avec trois ou quatre candidats avec des pourcentages assez, assez corrects qui peuvent se retrouver dans le cadre de gouvernement d'union nationale et, et, et, se séparer plus tard euh, pour pour, pour, pour défendre le leur, projet. Mais en tout cas, euh, il faut qu'on qu réfléchisse sur ça. Parce que tant que cette hantise du second, du second tour pèsera sur, les, les candidats sortants, ils il, il, pour, il, pourraient être amenés à vouloir tout faire pour ne pas, pour ne pas quitter le, le, le pouvoir ou aller en, ou aller en deuxième tour. Euh, maintenant, le, le, le, second point aussi, c'est que les coalitions aujourd'hui, c'est comme des, des écrits, euh, vous m'excusez du, du, terme. Alors, euh, les, les, euh, les, les, gens passent en, euh, dans, dans, les élections en coalition et chaque coalition, chaque part, membre de cette coalition voudra être récompensé par la suite. Alors, euh, ce qui fait que nous nous retrouvons avec des gouvernements euh, voilà, assez étoffés mais aussi des, des frustrations ici et là. Donc, je pense oui. qu'avec un scrutin uninominal à un seul tour, chacun va essayer de vendre son projet au Sénégalais et de montrer sa représentativité. Ah. Un, un, autre point oui, très que je voudrais ajouter, c'est euh, il faut trouver un mécanisme pour accompagner les présidents sortants. Pourquoi je dis ça Parce que tant que euh, les présidents sortants auront euh, le sentiment qu'ils seront poursuivis après l'exercice de leurs fonctions. Voilà, comme on l'a vu avec, euh, avec le, euh, euh, au début du mandat de, du président Macky Sall. Mm -hmm. Alors, ils vont être amenés peut-être à vouloir s'accouter au pouvoir. Donc, il faut, il faut trouver un mécanisme pour que le président sortant puisse rester dans le pays, puisse même continuer à servir le pays. Il faut aussi, dans la même foulée, donner un statut à l'opposition. Il faut réfléchir sur le financement des partis. Le statut de, du chef de, de chef de l'opposition, il faut, il le définir clairement. Vous voyez le débat qu'il y a eu récemment sur cette question-là. Alors, c'est sur que je voulais terminer pour dire simplement oui. que aussi, pendant ce dialogue, il ne faut pas s'empresser il faut prendre les choses au cas par cas parce qu'il y a beaucoup de problèmes et chaque problème euh, demande une solution spécifique. Très bien. D'accord, professeur. Mais ces quatre points, peut-être ce sont des solutions à moyen, voire long terme. Mais dans l'immédiat, qu'est-il possible justement de faire si aujourd'hui le président de la République, à savoir euh, Macky Sall, devait prendre la parole À quoi vous attendez-vous justement à retrouver dans, dans, son discours pour apaiser la, la tension sociale À mon avis, euh, tout peut se régler euh, dans ce dialogue-là. Je pense que ce qui a été dit lors de l'ouverture, c'est que aucune question n'est tabou. Oui. Je pense que c'est une brèche qu'il faut saisir mhm. pour euh, poser tous les problèmes et essayer de trouver une solution à l'amiable à, à, ces problèmes-là. Moi, je pense que le président, comme il a lancé le dialogue. Il faut qu'on aille, qu'on fasse vite mhm. euh, pour aborder ce dialogue la Ceux qui, ceux qui ne sont pas partants, euh, qu'ils reviennent à la raison pour y participer, parce que ce sera le lieu de poser tous les problèmes, y compris le problème qui est là aujourd'hui et qui peut peut-être trouver une solution. Mais je pense qu'entre-temps, on ne peut, on ne peut, moi, je, je ne vois pas comment est-ce peut trouver autre chose, d'autant plus que il y a une plateforme qui est là et qu'il faut saisir justement pour poser tous ces problèmes-là et essayer de trouver une solution. Très bien, donc la clé, c'est le dialogue. Il faut inviter les autres qui ne sont pas encore du dialogue, à savoir Ousmane Sonko, à rejoindre la table de la négociation, si on comprend bien, c'est ça C'est Pour moi, il faut que tout le monde accepte, parce que si, on ne fait pas ça, si chacun campe sur sa position, oui. c'est le pays qui, en, qui, va en pâtir. Et je bien. pense que les dégâts sont assez importants. Nous avons assez pleuré nos morts. Je pense qu'il est, il est temps d'arrêter tout cela, euh, d'aller de, vers, vers, vers, ce dialogue et de le faire sérieusement, avec sincérité, pour, que, pour trouver euh, une solution définitive à, ces questions-là. Les autres maintenant points qui vont être débattus, il faudra mettre en place des mécanismes pour, pour, les, pour, les, pour les concrétiser. Mais au moins qu'il y ait un consensus autour de, de, de, de, questions importantes. Maintenant, la mise en œuvre de tout ça va, va se faire euh, à l'issue du dialogue. Très bien. Professeur Mamaram Sek, secrétaire adjoint du QDIS, QDIS, cadre unitaire de l'islam au Sénégal et par ailleurs enchaînant enseignant-chercheur à l'université Cherante Diop de Dakar, est avec nous au téléphone. Merci professeur, merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir élaboré ces quelques pistes de réflexion pour trouver des solutions à ce que la paix revienne au Sénégal. Nous poursuivons ce rendez-vous d'information pour parler parler des mythiques allées Khalifa Ababacar Sy qui vont connaître une transformation majeure, une transformation à hauteur de 702 millions de francs CFA. Ceci grâce aux travaux de réhabilitation initiés par le maire de la ville de Dakar, nous dit Madjigène Diouf, accompagné de Seydou Sow à la caméra. Barthélémy Diaz lance les travaux de réhabilitation des allées Khalifa Ababacar Sy. D'un montant de plus de 702 millions de francs CFA, ces travaux prévoient l'installation d'aires de jeux pour enfants, de toboggans, d'un parcours sportif pour enfants, d'un jardin public, d'un terrain de pétanque, d'espaces fitness et d'arts martiaux, d'allées piétons, d'espaces verts, de bons publics, d'espaces d'expression artistique et bien d'autres équipements de détente. Ceci l'immense œuvre d'un homme de son temps, d'un homme de mission, de responsabilité et doté d'un courage patriotique intarissable au service de la tariqa tidjane, de la Oumma islamique, du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Cet acte symbolique posé par le grand-maire de Dakar d'alors, le grand commis de l'État, monsieur le maire Mamadou Diop en présence de Serigne Mansour si borom daara ji khalife général des Tidianes d'alors le 30 octobre 1997 en présence de toute la famille de Mame Maodo Malick doit être préservé entretenu et légué à la postérité en présence de plusieurs autorités étatiques et religieuses dont le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye. Ce projet est salué par la ville de Dakar, particulièrement la famille de Serigne Babacar Sy, qui aussi est bien représentée. kon bu ah, yàlla dogal sa Nous magnifions votre décision, une décision que nous apprécions à sa juste valeur. car c'est sous votre magistère que la réhabilitation, autrement le lancement des travaux a démarré. Toute la famille est contente qu'Allah veille sur Le général des Tidianes pour vous. tabaarakallaahu Diaz a profité de l'occasion pour annoncer d'autres projets en faveur des lieux de culte présents le long de ces allées par la prise en charge des frais de l'innovation de la paroisse. des martyrs de l'Ouganda et aussi de la mosquée de Dieuppeul afin de rendre ces lieux plus pratiques et accessibles. Le maire de Dakar a aussi déclaré qu'il s'impliquerait personnellement dans le suivi des travaux afin de respecter les délais de livraison de 12 mois. Madjiguen Diouf, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a procédé à une signature de deux conventions de partenariat. L'objectif de cette coopération est d'accompagner les PME, petites et moyennes entreprises. Ce partenariat vise aussi à faire des entreprises agroalimentaires les moteurs de la sécurité alimentaire, nous dit Thérèse Sambo et Pape La Chambre consulaire de Dakar vient de jeter les bases d'une coopération à travers la signature de deux conventions de partenariat avec Fils the Future et Projection Compagnie pour consolider son dispositif d'accompagnement du PME. La question de la sécurité alimentaire est au cœur de ce partenariat. En effet, la majorité de nos partenaires évoluent dans le milieu de l'agroalimentaire. On peut dire que le système agricole auxquels ils, auxquels ils dépendent. Malgré sa résilience, sa face au choc, peine à assurer la sécurité alimentaire, car au moins 1,8 million de, per 1 de personnes souffrent de sécurité alimentaire selon les statistiques de la FAO de 2020. La Chambre de commerce de Dakar considère que la meilleure approche pour réduire l'insécurité alimentaire et renforcer les capacités des acteurs de l'agroalimentaire, notamment les producteurs de fruits et légumes, de viande, de lait, de poissons. Selon la directrice du programme Business Driver for Food Safety, la sécurité sanitaire des aliments reste une préoccupation nationale pour les acteurs du secteur. d'où la nécessité de faire des entreprises agroalimentaires les moteurs de la sécurité sanitaire des aliments. Malgré les efforts considérables déployés par l'État du Sénégal à travers la construction d'infrastructures, la mise en place d'outils réglementaires et l'élaboration de normes alimentaires, la sécurité sanitaire des aliments reste une préoccupation nationale. Aussi, Nous pensons que l'une des approches qui doit être encouragée est celle d'inciter les entreprises alimentaires à mettre en œuvre les programmes prérequis ou des systèmes performants de management de la sécurité des denrées alimentaires. Notre projet BD4FS travaille dans ce sens. Revenant sur les retombées des conventions signées, le directeur général de Projection Compagnie est d'avis qu'elles vont permettre de changer le nombre de jeunes et femmes qui accèdent au programme d'accompagnement. Un grand merci que je veux adresser à la Chambre. J'ai un grand merci que je veux adresser à l'État sénégalais qui a accepté de, de, nous accueillir ici et qui euh, a euh, un point d'or sur le développement des jeunes et de la femme. Nous, on suivre ce mouvement. On va pour pouvoir aller dans ce sens-là. dans un contexte marqué par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Cette collaboration, qui ne date pas d'aujourd'hui, a pour objectif d'améliorer la qualité de l'entrepreneuriat. Pour les différentes structures impliquées, la synergie d'action va permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises du secteur agroalimentaire. Un Avec la cérémonie de la calebasse de l'Excellence Awards qui a été reportée à une date ultérieure par les organisateurs à cause de la situation tendue du pays, le promoteur Pape Amadou Mbot appelle à l'apaisement de la tension politique. Nous l'écoutons au micro de Cher Québec et de Libas Laindir. On organiser la cérémonie des calebasses de l'excellence sans la paix. C'est pour cela que nous avons décidé de reporter la prestigieuse cérémonie des calebasses de l'excellence. Nous avons subi beaucoup de perte Nous avons investi beaucoup de millions pour organiser la cérémonie des calebasses de l'excellence. Euh, c'est pour cela que nous invitons l'État et l'opposition, même la société civile, pour qu'ils puissent s'asseoir et parler parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, nous allons vers l'exploitation du pétrole et du gaz. Sans la paix, on ne peut pas l'exploiter. Nous organisons la cérémonie des calabasses de l'excellence aujourd'hui. Sans la paix, on ne peut rien faire dans le pays. C'est pour cela que nous appelons à la population, nous appelons la jeunesse à plus de retenue, à plus euh, de sens républicain. Oh, on n'était pas préparé par rapport à cela. On n'était pas préparé, vraiment nous étions prêts pour organiser la cérémonie des calabasses de l'excellence. On avait payé, on, on avait payé l'hôtel, les, artistes, mais là c'est vraiment dur. Euh, il nous faut reporter la cérémonie des calabasses de l'excellence parce qu'on ne peut pas le faire dans ces conditions-là. On est en train de réfléchir avec les partenaires, que ce soit l'hôtel et même aussi la télé et d'autres partenaires pour que nous puissions ensemble euh, prendre une bonne date et avant cela nous nous souhaitons que la Retour sur la scène politique avec le maire de la ville de Dakar qui appelle le président Macky à renoncer à une troisième candidature. Barthélémy Diaz estime également que le chef de l'État doit parler avec son peuple. Nous l'écoutons toujours avec Cher Québec. Vous le demandez en tout respect et en toute courtoisie et qu'il n'est pas question que vous acceptiez que certains vous le demandent par la force. Monsieur le Président de la République, pour la paix au Sénégal, nous sommes prêts, nous, à nous mettre à genoux. Parce que vous avez la clé aujourd'hui entre vos mains de la sortie de crise de ce pays et personne d'autre. C'est vous, Monsieur Macky Sall, vous, Président de la République. Alors, comme vous avez demandé à ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas briguer le troisième mandat, je vous demanderai cette volonté qui vous est prêtée de vouloir briguer un troisième mandat. D'abord, je vous demande, s'il vous plaît, en tant que maire de Dakar, je vous demande, s'il vous plaît, en tant qu'acteur politique, je vous demande, s'il vous plaît, en tant que jeune frère, le Sénégal ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre présentement. Le Sénégal ne mérite pas aujourd'hui de vivre cette souffrance. Deux jours de manifestation, 15 morts, injustifiables et inacceptables. Nous avons été, nous sommes et nous comptons rester ce modèle de démocratie sur le continent africain et à travers le monde. Et président, monsieur le président Macky vous avez la responsabilité historique d'accompagner le Sénégal à continuer à rester debout, droit dans ses bottes. Parce que le peuple sénégalais, en votant pour vous, n'a pas voté pour être massacré. À l'instant, les propos de la, du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, qui appelle à la paix et qui incite le président de la République à s'adresser à son peuple pour que cette vague de violence et de manifestations s'arrête. C'est cet élément qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe technique, merci à la rédaction de la DSTV, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la DSTV. boobu mësuma woon xalaat ni lii dina am daf ma bett dal sama kaw ci waxtu njolloor la woon yuuxu naa woo du sama boroom kër waaye fekk na mu dem tool ma am ay dëkkandoo yu farlu te bari yërmande waaye nag ndax xamoon nañ li ñu war def itam booba la may yëg ndorteelu tartar gu jigéen yu bari di jànkoonteel ci seeni tur mbir mi yàgg ma naan lii fu ma jëm ak moom jékki-jékki mu mel ni biddéew bu fàq ak i leeram tartar gi jeexagul woon de waaye xamoon naa ni mu ngi si yoon loolu féexal ma mel ni lu may may doolay àggale ma nekke noonu ba mucc topp ca ma dégg la nga daal yuuxu jooy sama xol daal féex La Fondation Sonatel a construit 13 nouveaux postes de santé, 3 nouvelles maternités, un centre de gériatrie, la première en région, et une maison des accompagnants à